ay itam dañu fi dalal ab invité bu nga xamante ni a eu à la buzz sur la toile pendant toute la semaine alors laata ñuy ñëw ci moom nag ndax moom moom nekkatul sax koo xamante ni dañ koy présenté fii ci Sénégal damay nuyu sama binom bi nga xamante ni euh, ngacc xaw na koo diggante démb ak barki démb pour ñi xamul ngacc mooy Asna as ñu wala wax Asna nag mhm. donc euh, Asna bu baax sax may nuyu téléspectateurs yi nga xam ni dañ ñuy doog a rejoindre sur la Sen TV midi bu jotee xelu kenn du dem ci lenn dul Sen TV di seetaan 100 pour cent buzz am naa nag tey moo li web tey dañ koy daal yaatal rek gën a indi ay information yu leer leer balaa ñuy accéder ci information de tendance musicale bi xew ci dëkk bi donc actuellement nii nii ñuy toog di wax a yéen invité bi ñu am invité de marque lañ ko mën a tuddee parce que toj na Sénégal nag toj États-Unis toj fu ne daal ñëw fii ñu indiwaat ko waxtaan ak moom laaj ko nag moom fu mu nekkoon ak ci lan la nekk ak li mu génnee bees lan la turam nag buñ ko waxee dina am lu leen jox ma bàyyi la rek nga introduire ko incha allah. voilà bi comme ni nga ko waxee ci boobu di lu web tey laata ñuy tëjee euh, buzz du net mais loolu rek du yem foofu ndax am na mhm. rubrique booy waajal téléspectateurs yi tamit ah, bu am solo boo xamante ni euh, samedi ñu euh, découvrir ndoo ko ensemble mais wax nga ko léegi abu ci balo toj euh, Sénégal toj Afrique toj Europe toj Amérique ah toj hmm. Asie yow foo tojul abu ah di nañ ko toj tey nag ba mook tey du ko dëgg ba mook salaamaaleykum wa maa ngi nii ñëpp bàyyi ma kenn na sama mbokk yi nga xamante ni ñoom laax naan bandiraɓe sehilaaɓe mhm. kala to mbaɗa wonde abou cuhra nan salminma mbaɗon ndaara jammano feewi Euh, kala biyo mbimi mbimamin noon gande ko ɓinguel mon jooɗi hande e télé o no foti yewtude e mon e 100 pour cent buse émission mo ganduɗa yimɓe foof kañum ɓe jeeɓata euh, mbokkuy abou cubalo mooy wax ak yéen seen doom seen rak seen xarit euh, di leen xamal ni maa ngi tey samedi bi ñu nekk maa ngi ci 100 pour cent buzz mu émission boo xamante ne ñu bari moom la ñuy xaar waaw mu bari nag ay coow mais coow yi chaque jour ci jàmm lay mujjee ndax lépp leer fii lay leeree lépp luñ bëgg leeral ñoom fi leen koy leeralee sans ci waxee kon mm-hmm. daal man tey dama ñëw pour déglu leen mm-hmm. ñu waxtaan ak man ma tontu leen ci dara jëy Seydina Mouhamad mm. acca gars yi na neex voilà na bëggaane waxtaan kese lay <laughs> nekk nag avec euh, toute la classe du ah. monde mm-hmm. parce que ñun moom ku xam-xam ñu ci dal ak euh, euh, laaj ndànk tontu ndànk invité yi sax ñooy emporté wu mais ñun moom je pense que suñu sérénité dafa day woy di constante ba ba abadan abu ñu ngi koy wax léegi euh, gis nañu dernièrement li nga xamante ni noonu nga defaatee sa comeback. Mm-hmm. génne ab woy bu rëy woy ci ku baax nag mu Ndiaye Cissé ma ngi koy nuyu de passage euh, euh, est mën nga ñëwaat très rapidement ci réalisation boobu boobu boobule woy. waaw woy boobu sax nekkul loo xamante ni moo nekkoon sama ambition. Mm-hmm. pour def ko leneen laa nu xalaat mais mais xam nga lu neex moom mooy li ñaan bëri reeru ñàmbi la. Mm-hmm. mais benn instant toog naa di woy morceau mu dikkal ma. may way di way di way di way ba xam ni ñun salsa yàgg na ak suñuy maam mais tamit ngoyaan yàgg na fi fii la nekk fii la cosaanoo déggal cosaan ma woyal la salsa bu la neexee mu ngoyaane ma gis ni benn dëkk boo xamante ni euh, maanaam ma gis benn dëkk bi nekk biir Sénégal muy Tëngéej dëkk boo xamante ni bokk na ci quatre dëkk yi nga xamante ni moom lañ njëkk ràññee biir Sénégal mm-hmm. muy senegal Gorée ak euh, Dakar non fii euh, Dakar Gorée ak Tëngéej ak Ndar Saint-Louis ci biir loolu nag laa ne ah pour pourquoi pas man waruma mën a way waa Tëngéej mais damay woy Tëngéej sama xel dem ci mu njaay Cissé ak keneen keneen ku sant Cissé fii ci réew mi mais dinaa am refrain bi rek man refrain bi laa soxla woon jàq Cissé ma demee looy. waaw loo ci woyoon li ma ci woy mooy. dama eh, dama ci ah, yow yow xam nga dafa émission yaa bëgg ay wér cosaan ma wayal la salsa babam ah babam ah. man ko ay bu la neexee ma ngoy yaat loolu laa ci woy comprendre nga ne ci euh, et puis ci woy naan cooli cooli maa ngi maanaam woykat bu woy ba woy boppam di mhm. rendre hommage boppam wàcc na mhm. ma ne cooli cooli cooli coolee ndaanaan laa ci biir ndaanaan yi la mais tëbuma tëb rek ne ndaanaan laa woy naa dix ans wala onze ans mhm. soog a taxaw am fitu ne man ndaanaan laa ci biir ndaanaan yi ndax Sénégal kullu kuy woykat fii di suma xarit ak nga bañ a nekk sama xarit sax damay toog gis bu ñu la invité booy wax ci man rek da nga ànd kooku ndaanaan la mhm. comprendre nga ma ne xaar léegi ma fooyee moo boobu rek mais mhm. ndaanaan laa ci biir ndaanaan yi mhm. comprendre nga et puis def ko tamit pour ambiance def ko tamit pour xale yi nga xamante ni ñoom amuñu royuwaay duñ roy kenn ku baax ma gis ni mu njaay si si royuwaay la ci réew mi Papa Mbaye Jacques Diop royuwaay la comprendre nga père Maurice Diop royuwaay la ma jaaga sax royuwaay la comprendre nga noonu ma rendre hommage di ci xamal nit ñi ne exemple quoi diw mat na référence. Mhm. kooku la ñu ne Moundiaye Cissé bi nga juddoo ci réew mi yàgg na. Mhm. fii nga dëkk doo ngaaka xam nga lépp luy la de. Mhm. mais yow yow laa wax sax yow xam nga ne yow doo ngaaka te fii nga juddoo ci réew mi Sénégal. kon xam nga ne Moundiaye Cissé kenn mësu koo xamoon lu ñaaw ci àdduna bi. moo tax ma am fitu taxaw. waay ko lu rëy ne ko doo. wóy bi ne ko mun nga rëyukaay alaaji Ousseynou mooy sa bàyyi ajaratu mati meng mooy sa yaay mhm. parce que way nit dafay yàgg quoi mhm. nit ki mën nga koo way sax te te te doo tudd turam mu xam boppam mhm. des fois nga su koy way agresseur te pourtant mën naa am sax xarit agresseur dëgg la mais bu agresseur bi tooyeeg moom tey day jàpp ne moom lay waxal or que ni moom Sénégal yépp lay waxal képp koo xamante ne daal ci lu bon nga nekk foo déggin di way lu bon jàpp ne yow lay waxal pour nga jéem a changer dëgg la kon man Ndiaye Cissé ko wooyee ne ko mën nga référence. Mhm. du moom rek laay wax. dëgg la Abu wooy wooy sax bu diglewul yeetewul euh, euh, ay mhm. nax yi kese la. Mhm. loolu itam def la ñu gis ni nga xamante ni noonu la defee le tour des médias mu nekk woy bu neex. mais gis nañu itam fan yë fan yële ni site internet yi xëy xëyee la ci benn émission boo xamante ni suñu naataangoo ba nekk fële ca 2S moo ko doon amal ji euh, Bijou Diagana nañu koy nuyu de passage après l' émission. est-ce que euh, ni nga xamante ni noonu la réseaux sociaux yi xëyee lancé ka ko doon def waaye itam euh, def grand zoom xaaroon nga ci loolu ba ngay jug di dem waaw xaaroon naa ci loolu hmm. parce que moom bu ñuy wax téléphone man ak moom hmm. comme émission rek la hmm. maam bu ñuy wax téléphone day neex quoi day waxtaan man bisu man am rusuma li ma woon ci télé bi noonu la mel ak man mais xëy na télé ak euh, privé comme sama diggante ak moom moo dul benn. waaw c'est que du benn quoi. Mhm. mais bi ñuy waxtaan sérieusement par téléphone dañ leen waxtaan mais man damay wax moom parce que man moom musuma def dara lu ma métti ah. ba ci mhm. émission bi sax comprendre nga fi ne. Mhm. mais meroon nga nag ci émission bi meroon nga xam nga man musuma nekk ci émission toog osé def nii. musuma koo def. jour boobu laa koy njëkk def. parce que dem na ba ne ma yow xanaa yow da nga préparé lii. mu ne ko oui dama ko ko wax ne ko comme ni ma wax bigi rek xoolal li nekk sa xool ak li nekk sa xel nga wax ko. parce que man boo may invité benn naa xam yaay kan léegi moom bi ma woowee leen rek ma xaw a metti ci émission bi ba mu daj mooy dama pare seetaan kii. replay bi seetaan. Euh, commentaire yi commentaire yi. gis naa ne nag Sénégalais yëpp nag ñu ci bari lu baax rek la ñuy wax ci man. te lu bon la wax ci moom. te moom jigéen te moom jigéen la ko wax. te dara warul loolu loolu baat bi moo ko fa wax. Mhm. te xam nit kenn du ko bu wax bëggee. Mm-hmm. koo bu max ba géej bu labul dina la ñoo di ngeen labaale dëgg la comprendre ne ku ne xam na ni man maa woyoon solution loolu ñëpp xam nañ ko mm-hmm. toog naa télé bu ne mm-hmm. daan naa toog ay télé yoo xam te ni moom su ma fa ñëwee bu ma ko fekkee benn émission bo maam bokku ñoon sax yoon man ak moom jamono jooju parce que man moom ak Salama bokku dañ chaîne mais Salama moo fa nekkoon doon diriger ah, waaw kon bu demee maag moom ba bokk plateau jàkkaarloo war a waxtaan man dama gisoon ni rek am na benn cër bu waroon daw. Mhm. mais tamit après bi ma ko jàngatee ay ree la ma defaat. Mhm. parce que ba dernier moment bi may jógee sama kër di ñëw ci émission bi mi ngi wax ak man ba naan ma amoo droit ñëw dama laaj dara. ma ne ko d' accord mais xam naa daal bu ñu yeewoo dig ma yóbbu police wala ñu tiktok ñu fu ne. Mhm. loolu moom wóor na. ah yow prévoir woon nga ni am. waaw parce que moom moo ko wax moom nee na bii du changé. concept la. concept ma waxee dara. su ma méttee ma tontu ko. Mhm. bu ma ci bëggee tontu tontu ko. mais mhm. l' essentiel que moom nee na bu fekkente ni dafa sol yére bu weex. Mhm. nit ñi naan ko sa yére bu weex bi rafet na moom lu ñuul lay seetlu ci biir yére bi pour génnee ko. xëy na sénégalais yi la bëggoon woon abu cubalo ban façon la. mais keroog samay réaction. li tax ku woote ci télé bi wala ku wootee rek wax. te doo wax ci man lu ñaaw. xëy na loolu yàlla moo ma dimbale rek mais am na ñu bari ñoo xamante ni moom nañu woote tey def ko def ko comme non def ma comme ni nga ko def. ko. mais en général moom lañ doon yemale. kon xëy na li mu ma wax dafa am ñu mu déranger ñu bari. Mhm. mais bu bu ñu ñëwaatee te li ma wax. Mhm. Mhm. bu ñuy waxtaan wax dëgg ca la comme li ma la wax ne la maa génne solution toog diir génne ma album. 2013 ba tey mais prévoir loolu génne ma album amul problème. solution 2009 ah, album bi fay na album bi fay na mais teewul ku ko dégg li nga xam ne mën ngaa way. waaw mais léegi fay boobu noonu xaaral ma léegi ah. fay boobu noonu sénégalais yi moom lañ may laaj. mais dafa ma wax ne ma carrément da nga fay. mais xam nga danga nga fay. Mhm. dafa diis dama ko wax sax ne ko d'accord naa. Mhm. mais dafa maam da cee jàpp di wax di wax di wax mais man it mënumaa toog télé. Mhm. invité ma di ma ñàkkal fayda samay morom yëpp toog. da nga fay rek doy mais da nga fay da nga beew. da nga réew prévoir woon loolu. mais barki Seydina Mohamed lépp lu ma fa wax. lu naa ko nga xam fay bi moo la metti ak da nga beew non non dama la wax ne da nga fay fii exemple ñaata artiste fi fay daw. am na ñu bari ñoo xamante nekkatuñ fi. dëgg la yaa ngi mais man boobu ba léegi maa ngi jëm jàmbaar laa. Mhm. moom bokk na ci ñi may maam publicité su may su may soirée. Mhm. maa ngi vidéo yi mais keroog bi may wax loolu sax. tayoo bi ma koy wax moom ci biir télé bi da koo weddi dafa ma wax ne ma non non dañoo tase rek RFC dèjà mi may ñàkkal fayda. dëgg li ma woon ni man defaluma la publicité. Mhm. dañoo tase RFC rek nga wax ma ne ma publicité ma ma ne ko c'est pas vrai. nit booy wax waxal dëgg te yàlla tax loolu moo fa indi sax waxu Pape Diouf bi. Uh-huh. Pape Diouf may nañ nangam ak nangam mu bëgg bële fa wax ji moo lay wax ne gis nit boo tey moom di ko laaj jàppal ni moom xamal na la lu bari loo xamante ni waxu ko. mais li nga wax rey na léegi moo tax ma ne li ma doon wax moom du dara. mais yow li ko wax rey na xarma la du dara de mais da nga bew fayam gi da cee boole bew dafa réew dafa nangam yaa ma topp ne ma dafa ma vidéo te ma am ay preuve mais foo jaar ma tontu ko beneen bi affaire fay bi garaawul mais dama ko woon maanaam dama ko doon delloo ci yàlla rek. Uh-huh. delloo boobu boo ko delloo ci yàlla. mooy dama ko wax ne ko boobu léegi yaa ngi wax loolu mais da koy xool yàlla mooy jël lu ko neex mu dogal ko yow yaa ngi nii sëy nga ñeent yoon di fay di tas te teewul yaa ngi nii sëyaan nga exemple laa kon jox rek kon waykat bi nga xamante ne day way mën naa sax waxuma la fay de mais mën naa disparaître dem feneen. waaw yaa ngi koy chargé nag am doy na nag yaa ngi koy chargé nag. non non yow yaa bëgg ma chargé ko mais dama la wax ne la ah, hmm. dama la wax ne la. ñu ngi koy nuyu pourtant dama la wax ne la pourtant dama la wax ne la pourtant dama la wax ne la daf ma metti après bi ma ko seetaanee. dëgg la li tax mu metti moom mooy du moom kese la loolu daal ci àdduna. Mhm. mais li ma doon wax tamit du man rek la metti. dëgg la ñëpp la metti barke Seydina Mohamed metti na ñu bari. Mhm. yow mi sax metti na la. dëgg la mais yow bi ngay dem xamoon nga ne loolu nga fay fekk ndax confrontation ko ko xam xam fii nii bi ma fiy ñëw. Mhm. lu ne xalaat naa ko. fii nii ci émission ok moom laa la si parce que seetaan naa leen. Mhm. mais bii ci démb dañuy waxtaan ak moom li ma gëm loo man moom loolu laa gëm quoi. Mhm. artistes yi ñoom ñoo may wax nangam te buñ duggee ci loolu ñu neex man lan laa la wax. xoolal fi sa toll. Uh-huh. ak sa xel fi mu toll. Uh-huh. nga laaj ma loolu mais briefing. maintenant Abou bu ñu ñëwaatee ci sa carrière leeral na nag digganteem ak Bijou mm-hmm. Ngoné parce que ça fait la une de la toile du ñu ko jéggaane balaa ñuy uh-huh. laaj leneen. Mm-hmm. mais euh, bu ñu ñëwaatee ci sa carrière euh, gis nañu. 2009 boom bi abu ci la defoon moi mm-hmm. l'album j'étais tout jeune mais jusqu'à présent paroles yi boo ma ci laaj xëy na du ma réer bi gi pare euh, entre borom ndaam solution Euh, la nga wayoon sa yaay ça c'est vraiment le tour du monde nga def ci aussi énormément de pays ñu jékki-jékki rek mm. abu mel ni ku def descente aux enfers wax ko ni nga ko waxee rek hmm? affaire bi jékki rek album bi fay non non descente aux enfers parce que fay sax album bi ba tey boo ko dégloo day mel ni tey nga ko wayoon mm. ndax li nga ca wayoon 2009 2020 yi la gën a nekk actualité mais nga jékki-jékki rek def une descente aux enfers su ma nee descente aux enfers mooy di chuter di chuter di chuter di chuter di ba kenn déggatul abu ci bolo selon yow lan moo marché wul woon Euh, xam nga yàlla mooy may jàmm. mooy xañ jàmm. man pour man li euh, Sénégalais di wax tout le temps ñu ngi koy wax ci man te man boobu ba léegi man ci waaru musique rek laa nekk. Mhm. kenn rombul abu ci borom muy liggéey leneen man musique laay def. Mhm. te moom moo yor ba tey euh, damay déglu Fafa muy wax naan ñu naan ko non exemple yow nga jékki-jékki jóge ci télé bi dem feneen rek fay mu ne non foo dem am na kilo kilo am na libre am na. tonne am na. est-ce nga fi ma mm. xam ne yaakaar naa yéen loon sax. Mm. kilo dafa am libre am tonne am nangam ak nangam. Mm. comprendre hectare am lu ne am. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon exemple imagine toi tey man su ma nekkoon kilo da nga mën a mën nga maa considérer comme yow benn sax gramme bu la neexee. mais l'essentiel que li wóor wóor mooy man bi may dugg ci woy xëccoo li ma fi woon. dama doon woy pour jéem a tabax suñu kër dama doon woy pour am. lépp lu tekki terale daal lépp lu góor di am pour ma amal ko sama bopp. Mhm. dama doon woy pour yóbbu sama yaay màkk ndax loolu moo njëkkoon nekk sama yéene ci àdduna. Mhm. defal suma yaay noo xamante ni day neex. te loolu yëpp comme yàlla dimbali na ma ci benn at li ma bëggoon yëpp ma def ko ci benn at. Mhm. génne album boo xamante ni fu ko nit déggee dina ne d' te ba tey plateau bu ma toog ba ma woowee ñëpp ne d' accord. man pour man lépp lu ma dal ci àdduna rek yàlla laa koy delloo quoi. ah bu kon da nga teel a regg. ma da nga dugg ci aar pour teral sa yaay. pour tabaxal sa yaay yóbbu ko màkk. nga tabaxal ko yóbbu ko màkk teral su retiré a toog. kon toog kon damay bàyyi woy dem Amérique toog wala ma dem Italie wala ma dem feneen. am naa possibilité boobu mais ba léegi maa ngi woy maa ngi teg sumay soirée comprendre nga fi

ku lu kuy journaliste ku lu kuy wax ci rajo télé. dina hmm. am ak yow waxtaan. mais abu lan moo marché wul parce que tam. ba euh, euh, bëgg ñu toucher le fond du problème parce que. Hmm. ça est euh, c'est un problème pour. tout tout autre musicien mm-hmm. parce que gis nañu itam des musiciens artistes qui ont connu un succès énorme jékki-jékki rek fay continuer di am talent parce que man dama gëm ni mm-hmm. je pense que ñëpp partagé nañ ab boobu ak man que danga bokk ci ñi dàqaway fii ci Sénégal mm-hmm. maintenant boo doon évaluer ba nga coy tollu dëgg ak ba nga jékki-jékki affaire yi wàññeeku selon yow ban erreur nga def wala lan moo marché wul man ba ma ciy tollu dëgg dëgg télé yu bari amu émission yi bari amuloon te pourtant maa ngi doon maa ngi doon dem fu ma neex di am lu ma neex. Mhm. muy li ma la expliqué rek yàlla moo dogal ñu génnee album bi ñu bokk ci ñi nga xamante ni yàlla tànn na leen pour sénégalais yi tamit déglu leen ak aduna bi. chance mhm. boobu la amoon rek comme ni ko ñeneen ñi ko amee. Mhm. nit jur na nit yar ko jàngal ko bëre mu ñëw bëre ba am ci loo xamante ni bàyyam amu ko ci woon. dëgg la. comprendre nga yàlla man daal dama jàpp ni yàlla mooy dogal mais yéen yéen xam ngeen ma mais mm. fit bi sa fit fit bi bu rëy bi nga am nag engagé nga lu ne rek ba ci Miss Jongoma bi waaw kooku sama jabar la woon sama soxna la woon mm-hmm. ñu sëy mag ñu sëy bi yàgg na ba ñu am ci doom am ci doom macha allah ñaata at ngeen sëy nañ trois ans mm. ñett at dañ la ne ku war ren ba déwén bu jig la mm-hmm. dañ la ko jën kon ñett at yàgg na dëgg la mu am ay kilifa yu baax am ay mm. waajur yu baax yàlla boole ñu comme tous les sénégalais ni ñuy sëyee tous les musulmans bu waree yem foofu rek dafa yem. affaire bi jeex. mais yow est-ce que partagé nga ñuy wax ni euh, succès bi ko ci dugaloon bi bu demee ba gisatu ko fa dafa dem yooyu hmm. noonu est-ce que tu partages ces avis là. non bi ma koy takk yàggul na nga fàtte. waaw bi ma koy takk 2015 la. mais xaalis bi jeex xaalis bi jeexagul woon xëy na. 2009 2015 xam nga ni ay waxi. am na am na lu desoon. waaw ah non exemple quoi exemple quoi loolu boolewuñu man ak moom. dëgg la. man man moom loolu boole wu ñun quoi te actuellement nii comme yàlla dafa dogal jabaru jàmbur la. mi mm. ngi seey suma grand laay lay seel. du yoon sax may toog di wax ci moom. il mm-hmm. se comprendre dafa ne comme jabaru jàmbur dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla dimbali mu sëy fa sëy bu rafet. a mm-hmm. jabar ba tey am. amaatuma jabar. Mm. est-ce que nag. Hmm? waaw actuellement amut amaguma jabar su ma bëggoon jabar suba suba mën naa ko am. mais est-ce ma exemple quoi comme jabaru jàmbur ñun l'islam daf ñuy tere sax ñu ko laa taxarabu zina. aywa comprendre nga man dama leen dimbali dimbali sama bopp quoi. dëgg fi ñu teg nii tamit. dañu fi maanaam dañu fay tegu dara éternel buñ dara jaral suñu diggante ak yàlla. yëfu jàmbur surtout mm. jabaru jàmbur moom bu ci ngeen wax yoon sax nit di ci wax waaw. la ñu avancé ñu avancé léegi dañ lay may nga soufflé tuuti mm. abu euh, xam nga ne émission bi dañ lay jox yow actualité yi mm. tukkee ci suñu people yi ci mm. site internet yi bind ko après ñu commenté ndoo ko ñun ñëpp nañu dem xooli bigi euh, lan la web bi xëyee tey kër bi li mu xëyee tey bëri de. dañ koy tàmbale rek ak waa sans limite li ñuy jot a titré moo di Mame Goor Diazaka moom ba tey noppiwul ci bàyyi di génn def ay sorties yoo xamante ni day indi coow ci internet bi maanaam bu ñu ko déggee nee na moom Mame Goor Diazaka dafa tàkkale kii di maître Moussa Diop maître Moussa Diop nag du kenn ku dul ki nekkoon directeur trois de di dakaar Dem Dikk donc dañ ko jotoon a limogé mu am ku ko remplacé donc ba pilor moom nee na noonu Macky Sall buy làqatu la may wax nag waxi maam góor jazaaka la ndax nee na bu ñu seetloo boobu ba léegi Moussa Diop saa suy génn di def ay sorties day def ay sorties yoo xamante ni du nekk en faveur du président de la République mu di monsieur Macky Sall donc moom euh, loolu la jot a génne comme information ak yeneen i euh, affirmation yoo xam ne jot na ko joxe ci micro wu sans limite point sm ba tey ci biir euh, réseaux sociaux yi nga xamante ni lu web tey la kii di imam Kanté moom mi ngi laaj leeral ci Akon neex nee na moom nan askan bi am ay leeral ci projet kon City bi nga xamante ni moom daf ko daal di instauré fii ci Sénégal projet boo xamante ni des Américains ñoom ñoo ko subventionné moom aussi mu dox ci jox ay participation en plus mi ngi insister ci ay infrastructures yoo xam ni remplacement yi day nekk infrastructure yi remplacer maanaam des pièces de rechange ñu jógee ko fii ci Afrique euh, maanaam bu ñu construire dara pour mën a remplacer bagages yi dañuy jëndee affaires yi Afrique mën ko utiliser Afrique donc lépp ci ressourcé wu ci biir Afrique et kon moom loolu la gëm xam naa abu dinga nga mës a am cité fii ci réew mi nag Dakar mën ta ñàkk comme tabax nga kër kay. <laughs> waaw eh, kon artiste la comme yow. non yàlla waxul kenn dara. yàlla am na loolu sax ma ne ku nekk mën naa am lu ne. Mhm. mais fii na koy bàyyi tamit bu dëgg la man samay samay mbir mooy li ma la expliqué rek. abu kii na nii rek mais billaay walaay boo ma jegoon di nga xam ne lépp bëgg muy lu baax dama koy bëgg. Mhm. man bëgguma lu bon. Mhm. waxuma la cité sax. njiitu réew mi sax bëgg naa ko doon ëllëg. incha allah exemple laa lay jox def lu kenn mësul def bëgg naa ko. mais yàlla mooy dogal man fu ma yàlla yemale rek. foofu nga yem ayca kii moom yemul fi nga xamante ni ci mooy millier mannequinat bi dafa dugg ci wàllum euh, actrice maanaam moom ñu xàmmee ko ci série Madior ak joor mu di Naar Diop euh, actrice Mariam Sy la ku xamul Mariam Sy ci temps wu défilé yi njëkk ya moom nag dem ba mu interpréter rôle d'une délinquante dans Madior ak Dior dafa daal di dégg lu ne nee nañ wax nañ ko Euh, lu nekk ci euh, àddinaam ba ñu ñu ngi koy waxal ni que rôle bi mu joué daal di nekk rôle lu caga moom nekk na rôle boo xam ne baaxul mu ternir image am mais aussi moom amour bi mu am ci li nga xamante ne moo di milieu euh, actrice bi mu nekk maanaam ci film yeeg yooyu nga xam ne léegi dafa daal di xew maa jor ak jor nag fii lay daw fii ci Sen TV mm-hmm. moom Naar Diop aussi mu daal di ci wasu ak wax ci ba génnee li nga xam ne moo nekk ci biir xoolam Sénégal la ko daal di amle woon ba tey il faut qu'on mm-hmm. ñun sénégalais ñoo xam a def la différence entre la personne et le personnage. Mm -hmm. c'est mhm. pas la surtout parce que dañuy gis actrices ou série ouais. ils sont très lâchés le net par mm -hmm. le mhm. biais de leur rôle. Mhm. te ku ci nekk rek je pense que mm, rôle la rek booy interpréter boo ci jugee da ngay. ils ont rien compris ni nga mel réellement du ñàkk nag ñu dalal fi. kenn ci yooyu la actrice xëy na mu wax ñu ñoom li ñuy dund en réalité en dehors des euh, flashs et des paillettes bi gi ay incha allah ba ci biir Sénégal Ndella Madior Diouf moom aussi mi ngi insisté di réitéré ci ay waxam ba léegi Nafi xaritu Nafi. Mhm. Ndella Madior xaritu Afi aussi donc moom. sama xarit la sànq ñu ngi déggante téléphone moom mi ngi insisté ba léegi ci ay euh, interview yoo xam ne jot na koo le moom Ndella Madior mu ne je suis tombée enceinte et je me suis mariée deux fois par accident donc moom nee na mariage yi nga xam ne jot na koo amle fii ci réew mi daf cee dugg nag par accident ba léegi trouvé gul chaussure à son pied ba léegi ñu ngi ñaan yàlla nag xëy na dina am ñoo xam ne bu ñu ko gisee seen xel nekk ci ñoom. pour mm-hmm. papa xam naa mm-hmm. borom kër gi rek ñu may ko ko mu ñeenteele ko. du ñàkk du ñàkk waaw. Mm-hmm. ñu ngi noonu <laughs> moom nee la maajoor ay ca ba tey ci biir mbëggeel xool nit mu neex la ba dee donc Omzo Dollar la moom dafa tàllal micro waa. waa Sénégal dañ ko jox micro mu daal di wax li nekk ci xolam moom nee na Viviane na nopp ci biir xolam donc moom Omzo daal la dafa xool Viviane mu neex ko trop mu daal di am ay sentiment ci moom ndax nëbb ko te dafa doon wax li nga xamante ni moo di talent bi Viviane amee ci mm-hmm. aar bi maanaam euh, interview yi nga xam ne jot na ko accordé ak lépp loo xam ne jot na koo génnee fii ci dëkk bi moom tam mu insisté ba tey ne moom waxul ni da koo neex kese mais dafa ci neex ko da koo ci biir xolam Viviane aussi tontu ko légèrement daal di ne ko góor fit bul bàyyi dara donc euh, insister ci li nga xamante ne mooy tànk bi nga daal di jël kii di dëggati aussi am na benn interview boo xam ne amal na ko ci internet bi moom nee na que mu nekk moom que pour Awadi ça ne vraiment plus comme avant maanaam li ñu amoon démb amatuñ ko léegi Awadi nag ku ko xam-xam ko ci studio sànkara moom dëggati aussi nekk si ay projet yu boppam mais aussi dafa insister ci fait que li ñu amoon démb mënuñu ko am euh, ba léegi fi may tëjee nag mooy li nga xamante ne moo indi coow di récap benn mariage boo xam ne jotoon nañ ko fi dégg mu di Mandiaye Seck ak kii di Marietou jabaram dañoo dégg ni dañoo daal di tàmbale divorcé <laughs> maanaam divorce bi lu ko daal di indi du lenn lu dul lu bàcc lii nekk na ci diggu relation bi d'après les rumeurs qu'on en eu ba tey ci sans limite point sn mi ngi xamal ni que moom Soumboulou Bathily dafa bàyyiwul waa ji ci euh, nekk ci xelam maanaam ci jàmmam parce que nekkul di continuer euh, di waxtaan ak moom aussi parce que am na ay vidéo yoo xam ne nee nañ mi ngi fuité yeneen audio yoo xamante ne mi ngi fuité aussi jóge ci ko góor ki comme ci ko jigéen ki ndax ñoom ñaar ni ngi doon entretenir ay relation ñi ne amicale ñi ne amoureuse donc doo xam fu wàllent di mujj ak gëtam d'après les recherches qu'on a eu Euh, conjugal am maanaam nekkatul ci kër ki nga xamante ni moo di Mandiaye Seck foofu di fa sëy et aussi dégg nañ ay coow yu jóge ci moom baat yu ñaaw yi du jóge fële di ñëw Mandiaye daal moom xam naa waroon na jéem a xool rek nu muy déggoo ak kii di Mariétou pourquoi pas mu takk sumbulu ñaari loolu tamit mm. mën naa ne de <laughs> en tout cas gis nañu euh, mm. ni ci site internet yi euh, xëyee tey mm. xam le ni c'est par le biais d'un message bu mm-hmm. sumbulu yónnee Mandiaye capté par sa mm-hmm. femme Mariétou moo waral euh, jamono ji ñu toll seen euh, sëy bi daal di naqari mm. ba ñu nekk ci yoonu tas yenn ci ay site internet sax di xam ne ni Mariétou daal di nay quitté domicile conjugal am boobu mën nag je pense que Mandiaye moo quitté mm. Mariétou ah Mandiaye dem de. <laughs> yow doo baax na en tout cas est la may. Ah, ak benn bu ndaw rek. Ah. nga naa di koy xool parce que kii moom nee na moo ko feeñu. ah <laughs> lii la wax de. waaw yàlla baax na Tupac de ñaan ma yàlla mu feeñu yu weex taxaw jox ko ak micro ndax dafa bàyyi woon ba pare Sénégal énergumène bu ne din ko gis. Mhm. ko dellu si ci plateau bi. man dama ne man bàyyi naa rab Tupac feeñu ma man dama bàyyi woon Tupac moo ma indiwaat su ma bakkanu doom Mansour Thiam laa la giñal man bàyyi woon naa hip hop dama tëdd guddi Tupac feeñu ma. sol jàllaabi bu weex tal xoolal ci yor micro comme ni ma ko téye nii ci sama loxo càmmañ moom mu téye micro loxo càmmoñam ndeysaan sol jàllaabi nag def tànki neen ci gént bi tàpp ma ba mën a bërët mu ne nuqi micro jox ma ko ma yeewu ci gént bi affaire bi seey ma quoi ma ma ree quoi ma ne mais man damay bëgg a dof wala noonu ma takk poon taal tux si mais ma tëddaat grand bi feeñuwaat ma non saan. xoolal loolu moo tax ci ci loolu sax moo tax la may ma turne ne dama gëm ki ma def li ma doon xam li may def li mu doon li may def li mu doon denc lu bari ni goon muytu lu bari lu boon sanc fu bari mu doon rap musique dës laay kon yow baax na yow lii moo weboon tey nag. Mhm. waaw voilà on espère que li web bi xëyee tey euh, euh, euh, gis ngeen ci seen bopp samedi prochain incha allah ñu indiwaat la. aboo ñu wax nag mu lay def ay code face. waaw baax na non abu nag gis nga. Mhm. àddina nag nii rek xam nga solution bi nga wan ne yàq ba ca restaurant ba. Mhm. ba léegi faute bi dañul de wala. non way bi bu fekkente ne am nga dégg-dégg. dama ne man dama tiit ba woon ni yax ba keroog sama put bi xaw naa xar. mais yaxu ginaar ñu ñëpp ko lekk. mais dafa mel nga lekk mu nooy nga. dëgg nga mais ba tey ci wax ji dafa mel ni put bi dafa xar. way wi ñëwatul wala. <laughs> voix bi waaw voix bi est mu ngi fi ba tey abu. ndeysaan xam naa da ngeen nam ay woy rek. waa mais voix bi wax dëgg yàlla na meloon rek la mel. quoi ba hmm. léegi hmm. comprendre nga. yàlla mi may dimbali quoi fu ma woyee rek ba léegi daal ni mu meloon daal la mel. te neex mhm. na bi nga xamante ni nag moom moo tax ñëpp xam la. mu di euh, Prince nañ fi ay rumeur yuy wax ni bi nga nekkee ci ay jafe-jafe daal. tànduruñ la la pour mhm. peut-être. Euh, taluñu ko woon dañoo bëri woon ay mhm. xam nga loolu lan nga ci mën a indi pour leeral parce que nag depuis des années. Sénégal yaa ngi ruminer sur cette chose pourquoi ils n'ont pas aidé. Euh, te ah, ci loolu la xam nga yow xam nga koy abu ci loolu. même bu dee xamoo yaa ngi may déglu yaa ngi déglu samay interview dañuy waxtaan rek. Mm-hmm. da doo seen benn télé mais di seen télé bii. Mm-hmm. maanaam man musuma toog ni am naa jafe-jafe ci musique. Mm-hmm. musuma toog ni am naa kii problème. mais boo nee ay interview nga soxla woon te ñoom ah. presse aar ñu am ku leen caqaamu groupe de presse bu mag. kon gisuñu la ci télé yooyu dégguñu la ci aussi. donc kon problème am na seen diggante abu ah, amuñu na boo bu fi